pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na bi feebaram bi mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw gën a feebar gën a ñaar maa leen soxla woon pour nu waxtaan. ku nekk xam na lu ngeen bëgg yow moom tukki nga bëgg yow Omar yow moom jabar nga bëgg. xaaral ma taxaw fii déglu leen waaw ah, ñoom moom lañ si bañul rek man bañu ma ko si maa ngi nii calcium laa a ah, jeex jaamu fopp yéen xamoo leen yi takkal la jabar. yow Issa ngi nii nekku fi sax dafa dem si mbokkam yi lijjanti lu mu am pour nga jéem tukki yow itam. ah boo ñoom it war nga wax ak ñoom de yow yaay aw bëri këram moom. ah yow man bu fi nekkul yaa nekk ci kër gi kon wax la xale yi waaw bu dee mën nañu xaar nag pour ma dee ñu jaay sama kër gi kii takk ci jabar ki ci des tukki si nax nañ seen bopp parce que man deewu ma deewu ma fenn maa ngi fi toog waaw du ma wàccee sama kaar su may nelaw sama mbolte bi moom parce que xam naa luñ capable ay sadik lañ mais yaay ñun xam nañ seen yéene si ñun ñun loolu xam nañ ko ma isaa yëpp waaw mais jaru ko quoi jaru ay tegg ay natt dem ci leb yi di jaay say or ak yu jaru ko waaw maa isaa teg nañ benn dil boo xam ne moom léegi mu leer quoi bu leeree moom dina mën a tukki man ma takk samay jabar quoi te doo leen amal kenn bor. teg nañ del boo xam ne A ak B la quoi. bi bu doxul. paa bi bu ko reyul B bi bëgg ngeen teg ko ci te ngeen bàyyi seen papa këram. yow Omar sa fenn ba ngeen demee hôpital paa boobu ngeen fa fekkoon moom itam Matar Gueye tudd moom lan ko jaawaleel kii dara dalu ko. waaye yaay xam naa ki ngay wax xam naa paa boobu moo ñëw hôpital fële ma koy jàppale muy dugg di jël rendez-vous am affaire yooyu ko kon paa bi dara jotu ko nii waaye ah. ah. Eh, ñàkk nañu Omar eh, eh, soo ma njëkkee dee na wax ji felenku laayu yow mi ma bëggoon miraas moom ma njëkkee dee wax ji dina doy waar dool waaye ah, man Omar jaaxaluma ku ma jaaxal lu ndaw la moom moo ma jaaxal sadik la wala du sax wax ak sadik waaw ah, bu ko fexeel mu wax. waaw ma xam lu nekk ci xel bi ma teel ko anticiper préparer ko. lay lay la la waaye Omar xam na Isa may ma ndox may ma ndox gaaw. non mère ba nekk ba fi ni may ay ndox de boo nee mu xam bu ko nee xamul ne waaw Isa boo ñëw fi woo ma naan ba ay paa mi léegi mu dee nañ jaay kër gi kenn xamul ndekete boobu naa jaxase carte yi xamul sax man paalasi waaw mu liir sax mënoo ko yow ñu la paa mi nga ni paa mi mooy dee paa mi tamit jël sama xaalis ñëpp waaye man xam naa lu may def man ma nekk fii sax ni wax xam naa lu may def bu baax. ah Issa li ngay def ba partagé ko rek waaw xam naa li may def moom day yem si yow rek waaw partagé ko ñu ne ñu xam li nga nar waaw man parce que xam naa la assassin nga assassin nga waaw rey maa ngi naan si ndox mi nga yemale képp waaw man moom xaaral si Pape Kanka Moussa mu tul mu tul ma gën a renforcer wu parce que mooy rek booy bi jël sama bakkan assassin la. Omar Omar Omar boo rey sa bopp di xam ne xaalis jaru de yow sa papa la gën a bopp